mbokk yi mi ngi noonu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waaye mbokki internet yi nga xam ni yéenay seetaan Tivaouane 24 TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo bi alxalifa sëriñ Babacar Sy Mansour di ñaan yàlla yàlla guddal fanam may ko wér ak mbooram njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick yëpp mbokki liggéey baa ngi noonu liggéeyu yàlla waaye liggéeyu jumaa Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiallahu taala anhu macha allah liggéey baa noonu comme ni ngeen koy gisee nii ci image yi mu neex a xool lool waaw jumaa ji comme ni ñu ko waxe rek bu agge moom mbektem talibé cheikh yépp lay doon fa tabarakallah kon nak ñu ñaan yalla suñu borom yalla na àgg ak jàmm sunu xalifa bi jité ko inigré ko waaw dund dund ba ca kanam ak kanam ci yàlla yalla yalla guddé sa fa may la wér bu baaxa baaxa baax wa baax soñu wat soññiwaat ñëpp rek ci pens waye tamit code bu bes bi nga xamanteni ni moy orange money bi pour képp ko xamni bëgg nga ca ah, tambal sa ñak rek ci liggéey mi non tabarakallah da nga def js 144 js cinq étoiles euh, quatre cent douze six cent quatre-vingt-onze nga def jees boo defee montant bi rek fa tabarakallahu dina àgg ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo gérer yooyu waaye tamit euh, Wave mu ngi noonu tamit euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor bi di Wave boo defee soixante-dix-huit quatre cinquante cinquante incha allah nga def sa participation dina àgg ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey boobu waaye tamit képp koo xam ne da ngaa yore li nga xam ne mooy cérémonie euh, mën ngaa def euh, dièse cent cinquante étoile euh, quatre étoile six étoile quarante sept soixante dix nga def dièse incha allah dina àgg ci ñi nga xam ne mu yore liggéey bi waaye tamit képp koo xam ne da ngaa yore e-money expresso étoile quatre cent quarante quatre ngay def def étoile trente et un defaat étoile code bi ngay def onze onze soixante dix sept nga def dièse. incha allah dinañ jot ci liggéey boo ko jaarale yoon boobu tamit yoo leen ko mën a jaarale bëri na waaye ba tey tamit képp koo xam ne bëgg ngaa eh, participer ci liggéey bi tamit eh, jaarale ko ci banque islamique du Sénégal numéro de compte bi ngi noonu ñu affiché leen SN nga def 079 341 01 nga defaat 251 124 025 nga defaat tamit double zéro def 1 48 loolu mooy numéro eh, banque islamique du Sénégal bi foofu tamit ku ko fa jaarale incha allahu rabbi waa jamaatu nuuru assunniya mi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom la kuréel googu nga xam ne ñoom la alxalifa sëriñ Babacar Sy Mansour wóolu teg liggéey bi seen loxo incha allah ko jaarale foofu rek ñoom joon ci jot waaye tamit eh, pent yi macha rafet lool eh, jekk lool macha allah fa tabarakallah am nay jar 5000 am nay jar tamit 25000 képp koo xam ne eh, soxla nga ci rek incha allah boo jaaree boo jokkoo ak waa jamaatu nuuru assunniya incha allah li nga ci ñun ñëpp ñu bokkaan woy participer waat ci liggéey bu baax a baax mu àgg ak jàmm yàlla def ñu suñu xalifa bi inauguré ko fa tabaarakallah loolu daal la leen doon soññaat bu baax loolu ñu abonné woon fii ci Tivaouane 24 TV jaa ngeen jëf